Bugu nyonga dem Bugu nyonga dem See ya, see ya, see ya, see ya Lijan tu nyun dem envisagé def lu bon teel ma envisagé def lu bon bañ espérer gis lu pire xel dem ci xol di xol bu baax mais benn xol du dem ci xel di gis lu waaye mu nga dem ci ganam jant sa repère ñu bëri def lu papu mais doo mus a doon seen père boo laajoon sama gaay nañ la wax daa yàgg leer di nga yàgg gis ñu mel ni man mais doo gis sama père maa ngi ko jëlee sama mi fa père balaa gaay ñu def ma brifa lenn moo ma dese moo jóg fondé sama mifa yenn saay ma mer ba giif mel ni mënu ma romb fii bal bu ñëw ma fente nekk gaynde tripa ñu la bëgg ne la men bàyyil nelaw bi they do for love cause they love me bu ma jógee day baax men they know me mama kontaanul ci lii yee melow ni yee melow ni teg melow ni pour mën a exprimer bu baax man mi li may yëg sama nan mu ngi fëgg ñenn ñii di ñaan mu fëgg ki may fëggal loxoom doy na sëkk